ci parrainage gi jox na beneen xar kanam élection présidentielle bu atum 2024 bu ñu jëm ba tax DGE woo acteurs yi ci formation ngir weccoo xalaat ak ñoom ci coppiteef yi ñu amal ci code électoral bi. mu nekkoon daje bu am solo boo xamante ne yu bare yu lëndëmoon leer na te gis naa ni lu rafet la ak ñi ngi rafetlu aussi jataay bi ni ko direction générale des élections organisées. ndaje mi doon na approche ndool ci mandataires yi ak coordinateurs nationaux wu candidats yi ñu waxtaanee. wallum doublon yi. ñu fi nekkoon en tant que mandataire liñ gën a dénoncé mooy doublon yi ni ñu koy defee muy doublon externe muy doublon externe ak cas de yi des fois dañuy rejeter pour motif de doublon rejeter la pour autre motif. logiciel gi ñu jagleel saytu li mu parrain gi bokk na it ci waxtaan gi. man li ma leen wax mooy am na benn partie boo xam ne daf ñu échappé mooy partie informatique jox nañu benn clé USB ñu ne buñ ko laal buñ ko modifié donc dem leen wax ne. nañu convoqué suñuy informaticien ak seen ak seen direction technique ñu wax suñu information ni ñu defee saisie bi pour ñu réduire les risques dans la saisie. ñu waxtaane it yeneen poñ yu bëre yu ci mel ni modalité de parrainage yi institutionnalisation wu tirage au sort yi commission gi ñu tëral ngir mu mën a saytu limu parrain yi ak caution yu candidat yi war a joxe ngir bokk ci élection bu atum 2024